ma ne maa ngi fekk ancien mbër. ah wala boog. na waa waaw bëgg maam. Sentel wala Alizé. Alizé wala boog. <laughs> mais Alizé léegi daa xewi de. non mais mu du ma sa xewi. Ah. du ma sa xewi moom lañ yor nii ñun ñëpp. baatu ñëpp Alizé la ñu. wala boog. mbokk yi kii mooy Alizé kii def na lu ne ci làmb ndaanaan la moo tax tey dama koo gis rek na ko Alizé kaay euh, mais Alizé làmb ñu tëjoon ko ñu jékki-jékki làmb tijjeeku euh, biñ tijjee ko daanaka euh, réew mi xaw na jax dëkk bi neexaat na parce que nit ñi dañoo namoon lii jaaykat yi ñëpp dañ cee kontaan naka nga gisee loolu. bon man li may njëkk a wax mooy ñu sant yàlla bu baax ñun ñëpp parce que feebar bi ñëw na tëj na ñëpp mais nag nañu xam ne itam euh, li waroon a am la rek yàlla moo ko dogal et itam yàlla moo ko jeexalaat comme nii daal moo tax it euh, comme lamb ji tijjiwaat na dañu am fierté bu baax a baax a baax a baax parce que lamb la ñuy dund waaw. dëgg la nga fàttali mbokk yi tuuti euh, ñaata combat nga jotoon def arène. bëri naa sept combat arène am naa quatre victoire deux défaites. nga fàttali ma ñaar ñi nga xamante ñoo ci gën a wala ñett ci ñu nga bëreel. ak Jordan bu Mbour bëri naa ak ndem si yàlla tampon ndaw bëri naa tamit euh, ak 50 euh, Cent waaw. caalis ni mu def noo ko gisee ndax bu ñëwee fii tey teg mise 1 million 500 suba mu bëgg leen ànd ki nga xam te mooy Tapha Tine ak Boy Niang signature ci biir Joal noo ko gisee. bon kontaan si loolu rek di ko ñaanal yàlla euh, yàlla lafal ko cat parce que tamit euh, ku yor teraanga yi nit dëgg dëgg yàlla dañ ko war a ñaanal bu baax a baax a baax parce que teraanga la waaw làmb moom képp koo xamante ne yaa ngi koy euh, def dañ lay ñaanal yow nga am wër bu baax a baax a baax. te ko ah. ñoo ngi lay jaajëfal acca mbër